Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée, merci de vous des likes, merci de vous des merci également Gaël de baisser les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager les l'information bok sénégalais yi fépp foo leen nekk 14 régions du Sénégal ruux-ruuxaat yi gox yi ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci lalu hôpital ak ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fugul seen bopp ngeen rek jàmm ñu nekk ci kaso yi ngeen xam ne aussi erreur judiciaire ak génne nañu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xar leen àjjana firdawsi gars yi te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie de e-sportive eSport TV l'actualité en continu gars yi actualité bi ñu fas yéene waxtaani Idrissa Gana Gueye mi daal di wax ci li nga xam nag mooy donc situation match bi contre Sénégal ak Cameroun la mais aussi Gourcam ak Lamine Camara Aliou Cissé aussi ki nga xam moo Song mi daal di addu ah. loolu nag nekk match bu daal di neex laata boobu nag nga xam mooy donc Guinée Équatorial équipe bi dama len ragal ñu len do daaw na mais dama len ragal parce que voilà équipe bu physique la équipe boo xam moo tey Nsou euh, nga xam mooy capitaine mo dadi dougal dugal hmm, ñoo daal di triple la dugal ñoom ñoo dóor ñam nga Guinée Bissau 4 buts à 1 match bo xam nak c'était à égalité mais xam nga rek waa Guinée Bissau mo sen défense baaxul pendant ce temps également Tom Sanfit journaliste gambien yi ñoo koy critiqué mais gars yi sincèrement nag lan ngeen bëgg ci Tom Saintfiet ba muy ñëw avant moo ñëw plutôt euh, ñi nga xam ne donc Gambie toog nañ juróomi at gagné wuñ moom mooy donc Coupe d'Afrique Gambie équipe bu baax la mais dañ comme je dis rek waruñu yàqamti quoi dañu war a def nànk-nànk et que pour man mi ngi def entraîneur mi ngi def liggéey bu baax a baax parce que Sénégal dóor la gars yi du gàcce champion donc aujourd'hui je pense que ne dañuy ñaan suñu mbokk gamé ñu gëna remobiliser wu man moo sañoon ñoom ñu jël deuxième ci euh, poule bi hein nga xamné également moy euh, Cameroun ak Sénégal ñu wara a daje mais gis ngeen nii ah ñoom ñoo bokk hôtel ngeen jour Camerounais ak joueur sénégalais yi ñu nekkandoo ni hein ah, gis ngeen di échanger et tout donc c'est une bonne bonne chose lu mu mënti doon rek match la quoi ce sera un duel de Lions yalla nañ gagner pendant ce temps rek ki nga xam mooy donc Rigobert Song nee le Sénégal mom ah, néna ñi di Cameroun mom ñoo mës a nekk ci kaw Sénégal mais nak temps yi affaire dafa changé loolu la wax waaye nee daal suba moom dina wouté ak match contre Guinée bi quoi nee na suba nañ gis match lol dal la Dagobert Song daal di wax mais en attendant dal on on sait que suba mom ah rabi concentration maximum am victoire ah donc mën qualifier loolu la ñuy ñaanal suñu gaynde yi hein, attend halluciné attendu hein. donc au tournant et match bo xamné dina joxé la quoi pendant ce temps aussi El Tactico moom wax li mu leer nee na moom. ñun moom ñun ñooy Sénégal ah ñun moom dañuy dem humblement pare nañ ci lépp ah, ñu ngi toog di xaar ah mais li war a def yëpp dinañ ko daal di def jëm ci li nga xam ne ne gars mooy match bi du match bu yomb mais nous on est prêt Idrissa Gana Gueye nag nee na luñ ci bañul ko ci luñ ci woo luñ ñu woo ah, ah, moom bu fekkee ñoom pare nañ ah ñun aussi on est prêt pour la guerre ah luñ ñu indi ko timbax ak li nga xam mooy gars yi koy ak ki nga mooy donc ak Lamine Camara bàyyi di wax wax affaire de concurrence et tout mu ne ñoom bu ñu duggee terrain ñooy dugg ci terrain mu ne booy la sama boy la euh, joueur bu am talent la moy ëllëgu football Sénégal wax naa ko donc man dama koy accompagner nañ ko bàyyi mu mag et je pense que loolu lañ wax donc jëlu ay concurrence idissa Gana Gueye kii Gana Gueye li def la mi ngi Lamine Camara defagul xaaj bi en matière de performance donc Lamine Camara dafa war a topp si ñu ne mu jël exemple té mom tax loolu lay def jamono ji sénégalais nak moy loolu hein donc euh, match la match la bu euh, Lamine Camara war a jouer day jouer ñun moom li ñu wax rek bu Gana Gueye war a jouer dañuy jouer mérite bi la et je pense que aujourd'hui war ñu créer dualité si diggante joueur yi ah Aliou également ah tooñ na fa tuuti suñu mbokk Camerounais et tout ah donc nee na Cameroun c'est le continent ah mon gars ah ci dellu ci kanam mais sachez que en tout cas match venir là la et on a confiance à l'équipe nationale du Sénégal on a confiance en notre sélectionneur et on a confiance que ni am nañ wóolute ne suñu entraîneur bi suñu joueur dañ def lépp lu leen war donc gars yi li qu'on a information ñu bëggoon jox hein, c'est toujours un plaisir de vous servir woy leen di like woy leen di abonnés on avance ensemble dans la magie des sportifs de Baba Show su barre ci yéen le bonee suñu la jaa ngeen jëf